asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ñaan sunu boroom duñu defal jàmm fu ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne kullama kaanal biru amaq kaanal maau abrad wa azab fakkir amiqan qabla an tuxrija dalwaka min qalbik fal kalaamu marhuunun bil aqli xakim bi nee na lu teen gën a xóot rekk ndox mi gën a sedd gën a neex teen bu ñuy gas lu mu gën a xóot ci suuf rek ndox mi di gën a sedd di gën a neex moo tax mu ne la kon xalaatal xóota xóota xóot balaa ngay génnee sa baag boobu ngay roote ci sa xol mooy xalaat yi ngay jëla sa xol war koo wax nanga ko xalaat ba mu gën a xóot ndax mu gën a rafet ndax waxkat dafa nekk loo xam dañ koo tayle ci am xel dañ koo tayle ci am xel mooy lan mooy lépp lu génn ci wax rek xamal ci xol xel la jóge buy jóge ci xel nag soo ko xóotalee bu baax xalaat ko wëlbati ko mooy lii tubaab yi di wax naan dangay tourner sa làmmiñ lu mat ñaari yoon euh, juróom-ñaari yoon ci gémmiñ bala ngay wax waxin la rek mooy rek lu jékki-jékki rek nekk téppit moo xam ne lu nu yar sa xel rek balaa jot a dal ba nga di ko seetlu sax nga wax ko ñoo xam ne noonu la leen yàlla nattoo lu rek ñu wax lu seen xel laal rek ñu wax te xel ak bët lum ci doon bu tegee ci dara danga war a tekkeel liggéey ci bu baax a baax baax bala nga koy génne soo ko deful rek njuumte lu rëy mën na la caa dab waaw loolu lool rek lañu xikma bi bëgg a jàngal bëgg rek bala ñoo wax ñu di ko xalaat di ko seetlu moo tax ngay gis bu nit waxee toj toj ñu ne ko ay yow li nga wax seetlu nga ko waaw ndax dafa fekk ne bu ko bu ko seetlu woon dana gën a rafet ni mu ko waxee te wax ju ñaaw fu mu daal rek daf fay jam loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba lu ñuy waxati rek mu rafet moo tax alquran di wax ne waqulu linnaasi xusna sëriñ bi dañu nettali waxi boroom xam-xam joo xam da jël ab yaat yi indi ko ci nex ju xadaa il xaaj muy awit lisaanaka xawlal xayri toxba bihi inna lisaana lima awatta yaxtaadu tàmmalal sa làmmiñ wax yiw kon nanga am chance njariñ li wax yiw di jariñ ndax làmmiñ kët lu ko ni taamal rek lay taamu lu dara ne teel kenn ku ne li nga taamoon rek moom ngay wax léeg-léeg nga gis ku ndaw tudd yàlla nga gis ku tiit daal di tudd kilifa gu baax waaye noonu ngay gisee nag ku tiit wax lu ñaawa ñaawa ñaaw ndax loolu la tàmmoon loolu lañu xikma bi doon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah